salle bi nga xam ne ni jamono yi ñu ngi xaarandi sëriñ bi ngir mu tàbbi si waaye gis ngeen bërëb bu tedd bi bu fi sëriñ bi teewee day daal di dënd ak mbooleem njabootuk sëriñ tubaa gi ngir ànd ak moom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni dañ koy royee ca seen maam ju tedd ja muy xaadim rasul euh, sëriñ Cheikh euh, Thioro ñu ngi ziyaare bu baax a baax di ziyaare mbooleem sëñ maam Cheikh ak mbooleem ñu fi nekk rek euh, sëñ sëñ Abdul Aziz di njaboot Euh, di njabootu njabootuk euh, Cheikh Madou Lamine Bara tey ji nag ñu am mbégte bu baax a baax niñ koy gisee ci seen teewaay ngeen di ànd ak sëriñ bi liggéey bu am solo bi yan kàddu ngeen ciy barkeelu. waaw ñu ngi sant yàlla tey jur yoon tamit alayhi di gërëm gu tedd di yital ay siyaar euh, ak i ndokkeel ak jégalu ci weeru sell wi di nuyu di siyaar suñu waajur wi Cheikh Abdoul Ahad mu Cheikh Mamadou Fadl ak mboolem ñi nga xam ne yëpp ñu ngi ci jataay bi muy jataay boo xam ni Cheikh mun taxa ci gis-gisam bu rafet moom moo ko xalaat moo ko taxawal euh, muy jataay boo xam ni mars na cee jàng yu bari ndax dafa fees dell ak yiw bu njëkk bi mooy tawasulaat yi ñu def suñu digganteeg suñu boroom nga xam ni yaa ngi fi jo jokkoo sa digganteeg sa boroom di ko fi yëg di fi jàngu taalibe di delloo sa bopp ci cosaanul yoon wi loolu dafa am ci jataay bi waaye li ci ëpp am na leneen loo xam ni gendeku nañ ko ci mooy jokk bokk gi ci nekk ndax bokk bari na bokk yoo xam ni fii la daje di fi gisante di fi nemmikonte di fi waxtaanante te kenn ku nekk lu jataay bi yàgg gàtt gàtt mën ngaa jële xam-xam mën nga fay yokk xam-xam ci ki nga dendal te sama waajur ma dellu Cheikh Abdoul Ahad mu Cheikh Modou Fadel nga xam ne saa su nekk ci wetam la ñuy nekk ñu ngi amee ci moom ay xam yu bëri kon jataay la boo xam ni mën nañu dafa fees dell ak i ngëneel dafa fees dell ak njëriñ bi ci jiitu wax naa ko mooy yëg gi nga yëg sa diggante ak sa boroom mu ne delloo ci tasawuf lay delloo ci ak taalibe loolu am na ci jataay bi ñaareel ba ñu ngi fiy dund sëriñ bi dund gu wér wér ceeg itam ak jokk bokk gi loolu lépp nag Cheikh Madou Mountakha ci xisam bu rafet ak bëggam lu baax moom moo ko xalaat taxawal ko daal di koy teg ci loxol nag Hizbut Tarqiyyah ci jiitu sëñ Yuusu saa su at mu nekk mu am ay ay rénovation ay yeesal yu am solo yoo xam ni day gën a noppal sëriñ bi ndax sëriñ bi ko gën a noppal rek mu gën a baax ci ñun ndax mag la te war nañoo bàyyi xel loolu te lépp ak xolam la topp ak bëggam waaye du man kon nag lu ko gën a may jàmm wala lu ko gën a noppal noof laay sax yombul waaye lu mu gën a oyof ci moom rek mu gën a baax kon ñu koy ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mu bàyyi ko fi guddal fanam barakati rasulillahi alayhi salaam ba léggéey bi nga xam ni yeneen da ko liggéey mu àggale ko di ndokkeel ñëpp ci weer wi nga xam ni mooy weeru koor weeru koor weeru alxuraanul karim la weeru julli la weeru tuub la weer la woo xam ni ci la laylatul xadar nekk laylatul xadar xayru bi na shahrin yàlla wax ci alxuraanul karim kon weer la waxal weeru gëneel la su ñu amee xéewal ak tawféexi bi di ñu ci wetam ñuy nekk ak moom di dund sëriñ bi loola loolu ndimbal la ci ñoon kon na yàlla yàgg te wér na yàgg te sax bu barakati rasulullahi alayhi salaam salaam jërëjëf jërëjëf sëriñ Cheikh Thioro Mbacké ci kàddu yi am solo yooyu moom nag ñu miin ko bu baax a baax mu yore kàddoog njabootuk Cheikh Mamadou Lamine Bara ca guy mbind waaye di yàggatew ci jataay bi waaye mu ngi dend ak sëriñ maam Cheikh Mbacké xam naa bu buñ ci amee ndigal rek daal di barkeeloo ay kaddu jëmale ko ci euh, jataay bu am solo bi ni ko sëñ Cheikh waxee léegi mu nekk jataay boo xam ne nii mbooleem njabootuk Serigne Touba gi ñu ngi fii ci wetu ki nga xam ne mooy jëwriñam tey ngir ànd ak moom jataay bu tedd bi yan kàddu ak ban jàngat ngeen am ci lu am solo lii lee ok euh, jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla rek ndax li tax ñu sant suñu borom subhanahu wa taala mooy ni ko sama mag ju baax ji waxee sëñ Cheikh Thioro ñu dend ak sunu waajur sëñ Abdoulahat Mbakke moom sëñ moom Cheikh Amadou Fadal dend ak sunu mbokki waa ko sëñ Abdou Rahman Lo yi nga xam ne ñoom lañ toogal ñoom ñëpp kon jataay bi day firndeel rek li sëñ Tuubaa doon wax ci yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi la zilta dayfan zairan abada mukarraman bi qirat taati wa sadadi muazama inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rachadi damay wax ñetti bayt yooyu rek mu Muntaxa dañoo dimbali ñu am ko ci jataay bi ndax ñetti bayit yooyu nekk ci kaw xaside googu sëñ Tuubaa da ci kañ weeru kooru tedd wu màgg wi ne ko gan nga goo xam ne eh, gan ku màgg nga gan ku tedd nga gan goo xam ne yàlla moo ko màggal yàlla moo ko teral ndax koor suñu borom subhaanahu wa daa bañ ba ne koor sama yëf la doomu aadama mu ne jëfam yaa ko moom waaye woor moom koor sama yëf la maa koy fayal sama bopp kon lu màgg lu rëy ci yàlla subhaanahu wa am xéewal googu ci nekk mu ne weeru daa nekk weer woo xam ne liñ koy tere liñ koy terale di ko bernde mooy bi xiraat taati wa sadadi mooy ci topp yàlla suma subhanahu wa ak def def yu jub mbokk yi bu ñu doon laaj jataay bi lan moo ko gën a jekk lan moo ko gën a màgg lan moo ko gën a yelloog weeru koor ndax waxtu wi ñu koy def julli lañ taksoon pare nit ñaa ngi jàng alxuraan karim bu ñu paree nag jël xasida yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne da ci kañ yontu sallallahu alayhi wasallam di ci julli ay salaatu ala nabi di tagg suñu borom subhanahu wa taala waaye di ci ñaan yàlla suñu borom subhanahu la te loolu mooy taat yi ñu daje nag ci bërëb boo xam ne ndax doomu aadama lu ñuy def lu ne def ko mbooloo moo gën waaw yàlla li mu bëggoon mooy lépp lu doomu aadama yi def jaamam yi di ko def rawat na julli ñu defe ko par mbooloo ñu daje fii ci am mbooloo nag daje ci bërëb boo xam bërëb bu sell la di berndeel weeru koor wi bi xiraat taat wa sadadi waaye gis nga Sëñ Tuubaa lañu mu'azzama inda rabbi la sharika lahu weer wi màgg ci yàlla mi nga kenn du ko bokkaale kenn waa inda ahli tuqaa waaye màgg tamit ci ña ragal yàlla sëñ Muntaxa kan moo ko jiitu ci ragal yàlla subhaanahu wa taala kan moo ko jiitu ci ragal yàlla subhaanahu wa taala moo tax sëñ Muntaxa toog dajale njaboot gi dajale mbokk yi dajale jullit ñi ñuy màggal ñuy berndeel weer koor gi topp yàlla subhaanahu wa taala wa ahlul ilmi sëñ Abdul Ahad sëñ Abdul Ahad mi ngi toog nekk ambassadeur di doom Cheikh moom Fadal di borom xam-xam kon wi ngi ci jataay bi toog wa rachad ak ñun ñi xam dañuy jëm sàkk ak njub ñëpp dañu ñëw fii ngir sàkk ak ndabi taraange yi sëñ suba waxoon ne moom la ñuy terale weeru koor sax mun taxa da ko defar ba mu jekk teg ko nañ ñëw leen ñu ànd ak yéen terale ko weeru koor gi kon daal dañ ñaan yàlla si mun taxa yàlla na fi yàgg loolu te wér te yàgg koo tewe at yu bare bare bare ba naa lim naalal liggéeyal eh, sëriñ Tuubaa yàlla su ma may ko ko ca anam yi gën a baax gën mi gën a jekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah xam naa dañuy jox eh, sëñ Abdoul Ahad eh, <laughs> waa xam naa beneen yoon incha allah tarkalla kon xam naa ne dafa mel ni kon daanaka li ñu ñu cërale woon ci waxtu jot na dañuy daal di jox kàddu gi ki nga xam ne moo di Baye Mansour sekk ni mu koy defee dalal kenn ci kuréel gi nga xam ne nii ñoo war a yëkkati tey muy kuréel 2 bu Daara Touba bu Tarqiyyah waaye jamono yi kuréel bu Njaareem Daara Njaareem ñooy gatanu sëriñ bi kon euh, ñu ngi ñaan daje ak ngërëmal cheikhul xadim di ñaanal bu baax a baax cheikh mouhamadul muntaxa ak mboolem njabootug sëriñ tubaag gi teew ci jataay bu tedd bi ñu yàgg fi loolu te wér leen jox dox daje ëllëg incha allah rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu